mais ci euh, immigration clandestine bi ce qui donne raison aux jeunes bien sûr qu'il ne faut pas dédouaner l'État l'État euh, l'État est quelque part responsable peut-être que l'État n'a pas assuré un avenir meilleur à ces à ces jeunes-là peut-être que l'État a manqué ci jox leen perspective mais c'est des hommes politiques laay dégg ñu ne xale yi ils ont raison c'est des hommes politiques laay dégg ñu justifier les choix d'immigration xam nga l'État moom est toujours responsable de tout parce que c'est l'État waaye nag euh, am analyse yooyu dafa xaw a simplice d'abord li xew ku mu jaaxalul wala naqariwu la sa nite dafa des ku mu ubbul sa bopp ku mu ubbul sa bopp sa nite dafa des man semaine passée rek kenn ci su may employé ndax chauffeur la woon ma am ku ma ko affecté woon gëjoon naa ko gis nag euh, dafa ñëw dugg suma kër ma gis physiquement mu ngi jeex mu ngi boo ko gisee rek nga xam ne kii dafa am problème bi mu ko laajee lan la daf ma ne non dama demoon ci gaal yi bay doog a ñëw su ma àdduna dafa tukki te pourtant kooku amoon na emploi amoon na salaire mu ngi ànd ak ñun di xeex sax pour APR kon xam nga mënuloo euh, expliquer rek euh, phénomène bi par la responsabilité di gouvernement de n'avoir pas donné du travail ou de l'avenir aux te cas boobu ma lay wax c'est pas un cas isolé bëri na ci ñuy dem ñoo xam dañu am xëy ñeen ñi sax dañu dajale xaalis bu bëri pour mën a cotiser donc je crois il faut ñu def analyse bu gën a yaatu boo xam man pour le moment aw ma aw ma une analyse sociologique sociologique et politique et lépp ba pare aussi euh, diir aussi la responsabilité de l'Occident parce que dafa yomb aussi écart de développement bi am suñu diggante réew yi te ñu def ñu ay corset yoo xamante ni pour ñu génn si quel que soit le régime c'est un peu difficile loolu tam on doit reverser en question euh, ils peuvent pas nekk ci benn tour d'ivoire nekk au paradis nit ñi nekk presque à l'enfer parce que simplement il y a de l'économie mondiale qui font que ñun tey ji quel que soit nos efforts pour ñu génn ci il faut que ñu réformer règles donc responsabilité sunu réew yi la mais responsabilité aussi Occident la de revoir les choses c'est vrai que aussi évolution numérique bi ak internet bi dem na ba euh, nit ki dafay gis benn différence fondamentale ah, moom li muy dund ak li mu gis des pays yoo xam ne téye à cinq heures de vol d'avion wala même parfois trois heures de vol d'avion hiatus bi am ci diggante bi au plan économique ça su se justifie guère ressources yi justifié wu ko njàng ak xam-xamu nit ñi justifié wu ko ñàkk sérieux justifié wu ko li koy justifié rek mooy des règles injustes implacable yu ñuy imposer nos pays <laughs> bien sûr la responsabilité. c'est ce que je voulais non, dire. on a on a nos je vais emprunter des, termes de Marine Le Pen arrêtons de culpabiliser l'Occident les BRICS oui. se sont organisés. ñu ngi nekk di imposer di exiger. mais il n'y a pas que les euh, BRICS. un changement de. le président Macky depuis depuis trois ans. mais il cinq ans. il, il est seul il, il se bat loolu mooy wane ne ñun nous avons pris conscience oh, mais même. il peut pas y arriver tout seul d'accord mais d'ailleurs il y a d'autres qui viennent quand je ah. suis bien le président du Kenya euh, vraiment dafay jël ay discours à la suite de Macky Sall yoo xam on s'en on félicite il y a une prise de conscience de nos décideurs de nos chefs d'État qui font que il faut qu'on réforme la gouvernance économique mondiale de même que d'ailleurs la gouvernance politique parce que ce qui se passe en kenn du wax ñi ñeme wax euh, ils sont trop partisans euh, ñi nga xamante ni amuñu doole pour wax mais amuñu droit au chapitre résolution bu yegg si conseil de sécurité am ñu poser seen veto c'est valable d'ailleurs d'un côté comme de l'autre mais adduna bi mënul continuer di fonctionner noonu. mais mais xam nga dafa am plusieurs débats économiques qui se sont posés. Mm-hmm. l'adoption de la monnaie éco. Euh, les accords de partenariat euh, économiques mu doon des sujets important essentiels yoo xam ne l'Afrique waroon na ci déggoo mais le continent est divisé parce que certains chefs d'État ñu ngi doon wut troisième mandat et donc bëggoon nañu neexal euh, les les les les occidentaux certains chefs d'État yu bëgg troisième mandat mbaa ñu yore seen réew nu ko warul yore dañuy jël nos ressources tijjil yoon les multinationales euh, étrangères euh, jël euh, tout ce est grands travaux jox ko à des multinationales étrangères pour avoir le soutien de Macron euh, on est prêt à à à à laisser la France. waaw ouais, loolu nous, nous, nous piétiner mais si. baal ma loolu mais si loolu c'est pas simpliste. non xam nga question yi nga wax yëpp c'est des questions d'importance la question de la monnaie c'est une question d'importance euh, c'est une question de souveraineté boo xam ne bon nañ ci joxe avis bu nekk c'est une question la question en aussi du marché commun c'est aussi des arguments et des atouts que l'Afrique doit euh, mettre en œuvre pour effectivement augmenter ses chances euh, d'aboutir à un équilibre économique mondial mais la question centrale pour moi et c'est celle que brandit le président Macky Sall c'est la question du financement de notre développement euh, l'accès du financement est régulé par des par par des mécanismes imposés aujourd'hui par les pays occidentaux de sorte que tey projet boo bëgg a financer ñu lay joxe financement boobu c'est totalement différent de France bu bëggee financer même projet bi ni muy amee accès te loolu ça ne se justifie pas par une différence énorme dans le risque comme ñoom ni ñu koy théoriser benn preuve palpable laa lay jox Covid bi bu mu yegsee il fallait que chaque pays mun a soulager son économie parce que économie bi doxatul woon tubaab yi ñoom dañuy joxe occident yi occidentaux yi liberté tirer de la monnaie financer seen entreprise yi sans limite financer seen économie sans limite ñun ñu continuer ñu téye naan amul leen droit am déficit de moins de 3 pour cent parce que y a risque d'endettement et cetera et cetera ça veut dire que. mais boo amul ma mais mais banque du du du la lebal. oui euh, mais du du jël les deux tiers de ton de ton salaire. mais mais pourtant <laughs> mais mais pourtant en France. Euh, dépassé nañ déficit boobu di dem ci Covid bi États-Unis mais la France a les ressources et les capacités financières non je suis pas d'accord elle s'endette ouais, elle mais elle, les ressources et les capacités financières non le débat de l'endettement est est criard en France aujourd'hui et le débat sur le déficit budgétaire ñoom ci seen bopp ñoom ñooy réclamer Union européenne de faire sauter le verrou du déficit budgétaire quand ça les arrange ça marche pour eux et c'est ça qui est injuste et c'est et tant que ñu ngi ñuy imposer corset boobu ça va exploser ça va exploser par notre jeunesse ça va exploser par des mouvements de de rébellion ça va exploser par des coups d'État ça va exploser par l'expansion du djihadisme ça va exploser par toutes sortes de phénomènes